ونجينا وله أجمعين إلى عجولا في العابدين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فصاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال له شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتعوني وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وظنوا بالخصاب المستقيم ولا تبخذوا النبع أشياءهم ولا تعذوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المصحنين وما أنت إلا بصر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأرسل علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين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 di nuyu ñep di nuyu ñep di jiital ci nuyo bi Serigne Cheikh amadou Tidiane ñang sunu kilifa di daara yi fajtal di ko jox wayam yalla sam ko te wattu ko di nuyu sunu ben kilifa sa kër Mbay Fall mi serigne babakar Mbay di ko ñaan yalla mu sam ko te ar ko te ko kazalika di nuyu sunu kilifa serigne souleyman Niang ci keur Massar Yalla sam ko te wottu ko yàlla sàmm mbindeef yep yep yëpp wattu leen sàmm daaray fajtal bi ñu bokku di nuyu oustaz ya fa nek yep yep yep yep di len ñaanal yalla yalla sam len di nuyu serigne Abdoulaye Ndour bu baax bi nga xamantene moy tax euh, sonu ba ngeen mëna jot ci euh, video yi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sëñ Abdoulaye Ndour yàlla na ko yàlla fay moom itam kon mbokk yi tey dañuy ñëw ci wàllu wërsëg wërsëg naa la laala wërsëg moom bu moom lépp la xaalis wërsëg la ay yu bari wërsëg la doom wërsëg la alal wërsëg la euh, maanaam wërsëg yaatu na moo tax du ma ko tuddee lenn du ma ne rek dangay ñëw ci wàllu xaalis wala ma ne da ngay ñëw ci wàllu lii dama naan ci wàllu wërsëg ar rizqu muy wërsëg ku ko def lii may wax nii ku ko def sunu borom dina la jox wërsëg xam nga ñu wërsëg ñu bari dañ yaakaar ne seen i pexe koy joxe am na ñoo xam ne dañ jàpp ne lii ñu am seen i pexe moo leen ko may seen mën a jàng wala seen technique wala seen xarañ jàpp nañ daal li ñu am seen i seen pexe moo leen ko moo leen ko may ñooñ nag seen alal duñ ci mën def lu baax ñu ci bëri bok seen alal duñ ci mën def lu baax parce que dañu japp ne seen pexé mo la ko may kon yow tamit demal nga def ay pexé dañu japp ne ñom li ñu mat li ñu am seen pexé mo moo leen ko may seen technique seen mëna jang seen xarañ seen mëna commerce wala seen technique seen tak seen biir waaw yo dañu japp ne loolu mo leen ko may kon nak li ci upp nak ku japp ne loolu mo la ko mo la may wëssal da nga nan kon ku nit ku nekk du ñoo ci yow di sàkku wërsëg da ngay jàpp moom na def ni nga def or que ñu la dàq jàng foofu ñu ngi fi waaye yàlla moo doon yaa ëpp wërsëg yàlla joxe wërsëg te yemu te yemalewul comme baaraam yemuñu ñu dàq liggéey foofu ñu ngi fi yaa yàlla moo joxe wërsëg wërsëg yemul comme baaraam yi ñu sutantee ñu la jàngal ñu ngi fi yaa ëpp wërsëg yaa ëpp dugg sax naan kii sama prof la woon sama lee la woon sama lee la woon ba ci ñu jàngal football sax nga yor ay milliards. da nga japp ne yow sax xam-xam la sa war ko ñi la ko jangal xam ko la jangal ku la jangal la mu lay jàngal boobu yow manoko dara yàq nga ba sonu mu lay ba nga man way lu ne sab xam-xam mo la ko jox rek yow do ci def dara lu bax sa technique mo la ko jox sa man jang mo la ko jox sa xalañ mo la ko jox ñepp dañ doon nelaw nga jog non ngay gisse da nga tak sa bir or ko lolu du ci ben ben ben ben suñu borom mo joxe wërsek nga sabab lu wërsek yamul mun na ko jaar ci sa waajur wu jigéen la mu doon liggéey sa kër baay mu ñëw ci yow am lu ci ñëw ci yow yàlla tamit ne bind sa destin la yow da ngay am wërsëg loolu laal rek mu nooy loolu laal rek mu nooy waaye yooyu bokk na la ci buur bi tabaaraka wa taala di ngay joxe foo toll di ngay dimbalee foo tollu di nga mënal ku mënul foo toll di nga sañal ku sañul foo toll bu fekkee ne jàpp nga ne borom moo la ko jox ci ngay man loolu waaye képp def sa xam-xam rek daanaka rek daanaka nattu yàlla dal na la yow. kon wërsëg boo ko bëggee da ngay def lii may wax da ngay bind bismillahi rahmaani rahim nga bind inna haza la rizquna ma lahu min nafaadin inna haza la rizquna ma lahu min nafaadin fukkeel ak benn li mu onze nga bind haza ataauna fam nun aw amsik bi gayri xisaabin onze fois wala juróom-ñaar bu la ci neex rek onze tool na sept tool na nga bind wa maa ramayta is ramayta wala kinna allaha rama fukkan ak benn wala juróom-ñaar bu la ci neex rek nga bind bismillahi rahmaani rahim qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduuna wala antum aabiduuna maa a'budu wala ana aabidun maa abattum wala antum aabiduuna maa a'budu lakum diinukum waliya diin fukk ak benn wala juróom-ñaar incha allahu taala loo koy booleel xobi wala xobu ngijaan yow di ko sangoo xaw ma ku waaye doon yow ci barke aaya bi inna haza la risquna barke aaya bi haza barka aaya bi wa ma ramayta is ramayta wallahi allahu akbar ci barka qul kaafiruun def bu nekk loon lim ma wax soo ko defee rek incha allahu taala boole ko xobi ngiijaan di ko sangoo incha allahu taala xaw ma kan mooy ñàkkati waaye dootu doon yow bu dee da ñàkk am na loo def yàlla yow bu dee da ngaa ñàkk yow am na loo def sa borom wala am na bàkkaar bu rëy boo def sa digganteeg nit mu naqari ko lool lool lool yàlla fajal ko ko incha allahu taala képp koo xamante ne sa mbokk day def lu bon day naan sàngara day def lu bon daal day jël lu mot a jël day maanaam lu baaxul daal donc lu bon yaatu na waxoon naa ko ci bee passé ci beneen façon insha allahu taala wala sa kooku mu lekk loo xamante ne dafa tag ci biir bi sonal ko lool ñaan biir bi yàgg na ci biir bi comme ni ma ko waxee ci façon wala li mu nekk ci yaram bi daal sonal ko lool muy feebar bu ne ci yaram bi wala muy lekk lu baaxul lekk lu baaxul wala mu lekk dara mu takk ci put gi ay at i at wanaasu mu di ko sentir wala la mu lekkoon mu ne ci biir bi kenn mënu continuer ba tey mi ngi ci biir bi yàgg na fa lool fu ne dem na fa pour faj ko ci biir bi docteur yeeg fu ne wala mu nekk kuy jël lu wala mu nekk jigéen buy jaay boppam bu ko ba maanaam lu bon yaatu na wala ñu defal lu bon incha allahu taala yow wala yow lu bon loo lekk ko itam yëpp lay dox. incha allahu taala da ngay bind fatiha muy bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ba mu jee arrahmaani rahim malik yawmi din ba wala daalina amin nga bind wa maa muhammadun illa rasulun wa maa muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusulu afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allahu shay'an wa sayajzi allahu shakirina allahu akbar laaya boobu ngay bind juróom-ñaari yoon lii nga di ko naan lépp lu nekk sa yaram lu bon dangaa lekk dara mu takk sa sa sa put gi mënul dañ nga xam ne li saa yu wanaasu ay ata ngi booy wanaasu moo lay jeune dangaa lekk dara mu nekk sa biir bi ay ata ngi nii mi ngi sa biir bi ci côté bi fu ne yenn saa nga yëg ne am na lu nekk sa biir bu ñu xoolee scanner xaw ma ne gisuñu bu ñu xoolee rajo ne gisuñu mais gisuñu mais yow mais yow mu nga fa ñoom gisuñu ko d'accord dëgg la gisuñu ko waaye yow mi yow mi mu nekk ci yow mais xam nga ne mu ngi ci yow kon doo la nekk ci da naan rek gisuñu ko kon yow mi ngi ci yow moo xam nag na mu fa nekke ak la ko fa dugal nga xamante ne day fexe ba est du ko gis dara du ko gis mu di la sonal defal lii nga di ko naan yàlla dégage ko fa incha allahu taala kon leer na sang yi incha allahu taala ba tey rek ñu ñëw ci wàllu wërsëg ba tey comme dañ ne dëkk bi dafa dëgër mbas mi moo tax dara dara amatul dara ñëwul lépp tëj na day bind bismillahi rahmaani rahim ba tey alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin ba faatixa jeex iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu ba wala daalina amin benn yoon ngay bind faatixa nga bind bismillahi rahmaani rahim alam nashrah lakk sadraka ba mu jeex wa wadaana anka wisraka ba mu jeex الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب نبينكو جروم ñaar يون بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر ان شانك هو الابتر جروم ñaar يون بسم الله الرحمن الرحيم الى في قريش الى فيهم ريحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف كذلك جروم ñaar بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ba mu jeex juróom-ñaari yoon bismillahi rahmaani rahim alqaariyatu ma alqaariya wa ma adraka ma alqaariya yawma yakunu naasu kal faasil mabsuus ba mu jeex wa takunu jibaalu kal ihni manfuus ba mu jeex juróom-ñaari yoon incha allahu taala kii bu la neexee nga sangoo ko juróom-ñaari fan yow di nga am wërsëg bu la neexee nga soq ci béjjunu xarum tabaski suul ko ci kër ga waaye na boo ko suulee ci kër ga nag dangay ngay zikkar sa yaj'alu llaahu ba'da usrin yusran sa yaj'alu llaahu ba'da juróom-ñaari yoon junni ak juróom-benni téeméer ak fanweer kon loolu nga koy zikkar ñaari fan yi ngay sangoo yëpp boo ko sangoo saa yoo xëyee suba gu nekk comme boo ko sangoo guddi suba gu nekk da ngay zikkar sa ak juróom-benni fanweer yow moom xaw kuy ñàkk. boko sango waye dotul don yow keur ga ko defi tamit xoma gën këree ñak xéewal waye dotul don keur googu insha allah taala kon defe leer na insha allah taala ku bind inna allaha maa allazina taqaw wallazina hum muhsinuna juroom ñaar yoon waaw lii de moom daa jàpp noob de waaw kii moom xamu sax mu téye ko waaw nga daal jël say def ci biir jëf jël def ci biir waaw kii ëpp naa leeral sox ko ci sox ko ci wewu nag bu ñu nag bu ñu rey ci ci nàngam nag boo xam ñu ngi ko rey ci nangam sox ko ci we am noo ko def ah kii moom kii moom loo ko def yaa ko moom mais ëpp naa leeral kii moom ni ñu koy waxee nii moom bu dee tool tool boo woon xëccoo di nga ko jël bu dee société booy liggéey doo boo doon liggéey doo fa jóge bu dee jigéen boo woon xëccoo kenn du ko jël mukk ci àdduna mukk maanaam loo ci def la yaa ko moom nag ëpp naa leeral dañu bañ def ci leneen mhm. waaw ëpp nañ def ci leneen moo tax di ci des dañ ko mën a leeral sang yu baax yi xam naa dafa topp ci kayit yi ñëw incha allahu taala kon mbokk yi ñu rek ci wàllu ku bëgg yàlla may la yow wér gu yaram ngay wokkatu moo xam kurabët la moo xam toppum siti la moo xam lu mu doon daal sa yaram bi nga bëgg suñu borom faj ko da ngay bind fàttalu kitaab mais aaya bu ne da ciy dugal wa in yakadu lazina kafaru la yuzliqunaka bi absaarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrun lil alamin ay bu dang ko ci dugal ñett yoon nga wut reenu caxat reenu mbor boof insha allahu taala reenu mbor boof bu ndaw rek nga ci wut benn bu tuuti bu saw saw bu ndaw ndaw daf ko ci saafara bi di ci sangu di ci naan insha allahu taala la nekk seeram ba dina dañ insha allahu taala ba tey tànk xar di metti bopp bi ruus Kawar gi rus kawar bop bi di rus yaram euh, yi du furi tuñi dag, euh di xesan tuñi dag di xar tanki dag wutal reenu dank ak reenu wateenu bet ak reenu keng ak reenu senjeñ nga bind fatul kitab ba mu jeex bind juroom ñaar ayatu shifa way ba mu jeex mais ayatu shifa yi koy bind aaya bu nek juroom ñaar yon nak juroom ñaar la ayatu shifa way xam ngeen ko aaya bu ne da nga ciy bind juróom-ñaari na aaya yooyu suñu borom moo ci wax aaya bu ne da koy bind juróom-ñaari juróom-ñaari aayatu shifa yooyu aaya bu ne nag da nga koy bind juróom-ñaari yoon boole ko liima lim incha allahu taala di ko naan ku la gis dangay rafet sa deret day rafet sa deret day set bu doon doon dox deret ji day doxaat euh, yow kurbët gi day dañ euh, xesan xesane day dañ euh, balaam ñu dagg ya tuñuy dagg yépp day dañ mooy soo wutee reenu dànq reenu wuteenu bët reenu keng reenu senjeñ boole ko aatu sifaaw yi bu ne nga bind ko juróom-ñaari yoon insha allah taala ku ko def dina wuta yow bang ka ko insha allah taala jigen jo xam da nga bëgg suñu may la borom kër suñu borom may la borom kër ku ñëw rek dem ku ñëw rek dem xamoo lan la xamoo rap la xamoo lu mu doon sonal la ba bëgg dé da ngay bind sotul waqi'a ba mu jeex iza waqatil waqi'a mais bo bo yegge fi talhin mandudin wa zillin mamdudin wa ma'in maskubin وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فنغيم لولو مخ موم غاي بامو جوروم ñaar yoon yeggali waqi'a ba kon nga defé ñet ñaari téré bu ñëk bi boko defé dang koy sango bu ñaal boko defé dang koy tak yow legi nga am borom kër insha Allah ta'ala ok kon leer na kataballaahu la axlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyul aziz inna allaha qawiyul azim waaye nag waaye nag boo ko bëggee jël inna allaha qawiyul azim ngay bind inna allaha qawiyul aziz da nga koy bàyyi kon lii tamit daa xaw jàpp noob kataballaahu la axlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyul aziz waaye nag boo bëggee jël li nga bëgg inna allaha qawiyul azim ngay bind yaatal mi mu azim ba waaw daf ci waaw am na lim boo koy bind kon tamit bu dafa xaw a jàpp nopp man xam lu tax yi topp ma yi topp ma tey waaw dafa xaw a jàpp nopp tamit incha allahu taala kon du ñu mën a leeral ne ñaatoon nga koy bind waaye incha allah boo ko bindee daal saf ko ci béy jën bu jigéen laxase ko morsa bu weex waaw naa leeral de waaw wallaahi ah, la mu mujj daal la mu la mu mujj daal mooy yu xibbuhu xubban shadidan dina la bëgg bëggal bu rëy rëy moom la ca suuf la ca suuf rek laa liir na mais li ci digg bàyyi naa ko lu jàpp nopp moom dañ koy bàyyi dañ koy tëb insha allahu taala kon mu ngi noonu insha allahu taala ñu ci wàllu wërsëg ba tey comme dëkk bi dafa dëgër nga bind bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex arrahmaani rahim ba wala daalina amin rabbina alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqada zahraka ba mu jeex juróom-ñaar dañ koy bind boo paree nag nga wub juróom-ñaari taxaaru timin timin timin timin yi muy bërëweel ngel juróom takk nga ciy ak juróom-ñaari doomu aloom doomi aloom aloom xam ngeen aloom ñaari doom nga ciy ak juróom-ñaari doomu satu aljana dom satu aljana xam ngeen ko garab la doom ba ci juróom-ñaari dom ak juróom-ñaari doomu new xam ngeen new ci juróom-ñaari dom ki na mooy xambuk alal ki ki kuñ ko bindal ba jox lako ak eh, bind ko ni am na yu jox lako nga di sango wala ñu yónni nga diko sango dina am tamit kawaru xaru ben melo xaru ben melo xaru mu weex tal kawar gay nañ ko sacc touri dafa la ko ci bir kii mooy tamit day am day am tuuti xaalis maanaam dërëm dërëm ñaar dërëm wala juróomi dërëm day am tuuti xaalis tamit def ko ci biir saafara bi kii mooy xàmbu wërsëg dëgg dëgg dëgg bu ànd ak alal xam nga wërsëg dafa yaatu bi xàmbu alal la insha allahu taala ku lii wala mën ñu def ko yónnee la ko waaw kon mbokk yi seen mbokk seen xarit sanjiri job tey moo ñëwoon rek indi leen seen émission yi fajtal di leen gërëm bu baax a baax di wane rek ñu ngi déglu ñaan yi ñaan yi rafet na ñu ngi koy dégg li ngeen ci wax yëpp yal na leen yàlla fay yéen itam ñu ne ci biir Sénégal yal na yàlla fay leen ñu nekk bitim réew yal na yàlla fay leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla jox leen wërsëg yal na yàlla aar leen fa ngeen nekk ni ma koy waxee rek nekk bitim réew dafa metti ngeen nekk fa Euh, der yu nuroowul làkk yu nuroowul xol yu nuroowul waaw nga ni daj lu nekk di jànkonte lu ne yàlla na yàlla sàmm leen ku yàlla sàmm nga sàmm kon nag yàlla yàlla sàmm leen ne bitim réew ne ci biir réew mi tamit yàlla yàlla sàmm leen sunu Sénégal gi yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm feebar bi yàlla na fi jóg yàlla na fi jóg yàlla na fi jóg feebar bii bëgguma koo tudd sax parce que agresseur laa ko tuddee ñu bëri dañuy jàpp sax naan nit ñee ko fi téye man su ma déggee ku naan nit ñi bu ñu bu ñu bu ñu moytuwul bu ñu moytuwul dama naan sax yow yaa ngi tooñ nit ñi yow loo xamante ne bi muy ñëw kenn indiwu ko fi am dooleem forcé ñëw fi kenn mënu ci dara di dugg ci aéroport yi kenn mënu si dara di force di dugg ci nit ñi kooku kay agresseur la feebar bi agresseur la mooy agressé kay nit ñi di fa dugg ñuy wax nañu éviter daan nit ñi bu nit ñi mel ni ñoo ko fi mel ni nit ñee ko fi feebar bi daal man dama jàpp ne feebar bi mooy agresseur ci boppam feebar bi bëgguma ma tudd tur bi sax vraiment li mu yàq dafa bëri feebar bi mooy agresseur dëgg dëgg dëgg jóge fu sori di dem di dugg réewum jàmbur kenn new la bienvenu nga ne par force di nga dugg di dugg di rajaxe ah yàlla nañ yàlla musal yàlla nañ yàlla aar yàlla nañ yàlla sàmm yàlla ma ko fi yàlla ma ko fi mën a jële yàlla na ko fi yàlla jële yàlla na ko fi yàlla jële ci rajo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp euh, dig daje alxames bii di ñëw والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رأس يصلون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسم بالله لنبيتنه وآله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا بوذكانه وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاضية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون